Eh, di jégaluwaat rek ci retard bi ñu am euh, tuuti noonu euh, xam leen ne dañu euh, xoolaat càmbaraat lii di li ñu war a présenté et pour mu gën a pour mu gën a ñoom alors leen ne jamono jii nii. que presse bi mi ngi dund ay jafe-jafe yu metti et que tey jii nii sax dañoo waroon a def une de silence euh, que en fait pour xamal leen ne que euh, jafe-jafe yi tar na tar goo xamante ne liberté de la presse mën nañ ne sax faatu na moo doon waral une minute de silence boobu noonu et euh, yaakaar naa ne depuis ab diir a ngi nii walla ay. atta ngi nii presque bi musul dund jafe-jafe yu mel nii et yu garawee nii euh, boo dee xool euh, nekkul ne parce que dañu jàpp journaliste wala technicien dugal ko prison rek moo tax wala ñu couper signalu fi ay télévision moo tax wala yit sax euh, ñu diñuy defar ay accusation yoo xam ne vraiment amul lenn ci yéenu maanaam moom moo war a mën a tax et boo xoolee loolu ñuy dund noonu yëpp tey jii dafa war a tax ñun taskatu xibaar yi ñu tuba taxaw temm pour défendre suñu profession ndax cër gi ñu am ci wàllu démocratie euh, li nga xamante ne nag euh, moo am mooy que ne état bi boo di xool lu ci bëri euh, bu jëlul fisc bi teg ko ci kaw entreprise de presse yi. mi ngi xool ñi nga xam te ne ñoom lay liggéeyal ak ñeneen ñu dul liggéeyal loolu bokk na ci loo xam te ne dafay gën a affaiblir euh, presse bi ba jafe-jafe yu bëri gën cee ëpp mais surtout euh, mu tax en fait ku ñëw rek mën a dugg ci presse bi ba ñuy dund li nga xam ne mooy euh, foisonnement bu jéggi dayo bi mais aussi it mu ak yeneen i jafe-jafe yoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi euh, taxawal ay assises pour ci war a mën a war cee mën a andi saafara donc pour wax leen nekk rek maanaam mbir mi du mbirum économie kese mais aussi it euh, ba ñu gisee euh, lii raam nar a jëm ci ñàkk li le 3 mai 2021 defoon nañu assise devant le ministère de la communication pour alerte xamal nit ñu ne kat. jamono ji ni jamono jii nii Sénégal liberté de la presse mi ngi commencé sooxe et bañ koy wax booba euh, rapportu Reporters sans frontières génnagul woon et ba mu génne ci la ñu perte vingt quatre places bu mujj bi nii passé ci la ñu perte cinquante quatre places pour wax leen nekk maanaam ñun ñi koy dund gis nañ li xew et nekkul ne rek parce que jëlewuñu fi journaliste euh, dàquñu fi journaliste wala tëjuñu fi euh, organe de presse étrangère. que maanaam euh, liberté presse sooxewu fi parce que li ñuy dund ni tey ci côté économie parce que su bi dafa sooxe trop ci wàllu presse bi journalistes yi nga xam ne ñi lañ tëj prison wala ñu ñu ñu ñu takkal leen lam wala ñu nekk en euh, liberté euh, conditionnel loolu jéggi na dayo met léegi nag li am ba am mooy que ne maanaam du pouvoir bi kese ndaxte boo xoolee presse bi dafa am ñaari côté yoo xam ne ñoo ko séq kii di dóor fii kii di dóor fële bu teyee ñu ne ah kii kat journaliste corrompu la journaliste vendu la bu kiiwee ñu ne ah kii kat journaliste opposant la kii kat opposition bi la la fare wala ñoo koy financé wala ñoo koy ñoo ñoo koy euh, euh, ñoo ñoo koy toppatoo ba tax na tey jàmm jamono jii pour gis fi journaliste wala rédaction boo xam ne Euh, amul njàqare wala nekkul di def liggéeyam comme il le dafa jaxe donc esprit critique boobu ñu bëgg a rey suñu biir il faut que ñu bañ ko xam ne carrément que journaliste dafa war a nekk impartial def liggéeyam comme ni ko euh, teg yi waxee mais surtout nag en toute objectivité et bu ñu kenn tiital li ñu ba tax ñu wàcc yoon wala boog ñu war a defee métier bi neneen euh, lii jara fàttali aussi it mooy population bi ndaxte ñun population moo ñu ñor information yi ñuy joxe c'est pour le public et ku ne xam na ne public bi dafa am benn droit boo xam ci ne bu am solo la mooy le droit à l'information ñoom dañ leen ñaan ñu bañ a déglu ñi nga xam ci ne bu euh, la neexee ñu faral la ñu côté bii bu la neexee ñu faral la beneen côté te xam ne kat ay nit bu ñuy. jiiteem réew wala bu ñu aspirer jiiteem réew war nañ am hauteur d'esprit war nañ am mat goo xamante ne war dañu mën a euh, comprendre kat que journaliste liggéeyam lay def par parloowul àndul ak kii àndul ak kële aussi it li nga xamante ne euh, moo ci am mooy que ne ñun xam nañ jafe-jafe yi nga xamante ne am na suñu biir et yaakaar naa ne ku ne gis na ko ci code la presse bi Euh, apport bi nga xamante ne def nañ ko ci suñu apport boobu noonu am na solo trop et amul lu ñu nit mën na wax ci code bi loo xamante ne xamuñu ko ndax boo xoolee soixante ba soixante-dix pour cent ci article yi nga xamante ne ñoo tënk code bi suñuy proposition la bu ñu fekkante ne woon ne nag euh, doguwuñu woon ci am profession bu ñoŋ bu baax boo xamante ne vraiment da am fu muy féete population bi Euh, di jàpp ci développement réew mi je pense que doon ñu woon def proposition yooyu noonu boo gisee yi tey jii ñuy liggéey ci li nga xam ne mooy assise nationale des médias aussi it pour mën a am nekk aussi force de proposition pour maanaam mën a changer xarkam xarkanamu presse bi pour maanaam meilleur devenir presse bi mais surtout ñu mën a façonner population parce que aussi presse bi dafa am rôle bi muy joué ci démocratie bi am rôle bi muy joué aussi ci population bi et pour ñu mën a façonner population bi ba nga ne am population bi bi bi gën mën a porter développement Sénégal il faut que aussi presse bi euh, ñu jàppale ko économiquement mais aussi ñu jàppale ko ba nga xam te ni ñii ci ci liggéey nañ am xel mu dal ba du ñu def autocensure nañ am xel mu dal ba du ñu ragal kat bind côté bii wala bind côté bële parce que tam ñu ne leen kat ah diw kat moo koy fay wala kat kii euh, diw mii kat dañ kaa jënd te loolu lu jar a ragal la lu jar a daw la leen li nga xam te ne nag am na dañuy ñaawlu trop li sës si dund fan yi paase. et ñun yaakaar nañ yaakaaroon nañ ne lépp lu mën a xew ci réew mi c'est si quand dinañ ko épargner ñu bañ kaa attaque ndaxte tey bu ñu toogee nit ñi bu ñu toogee seen kër di jot information c'est parce que dañ leen a former à bonne école e di ñaawlu vraiment attaques yi nga xamante ne CESTI subir na te di xamal ne ne nag par rapport ak li fi xew lépp ak coupure bi illégale bi nga xamante ne moom lañ def faj Walfadjri par rapport ak journalistes yi ñu téye tëj leen kaso gi par rapport ak journalistes yi nga xam ne ñu ngi nekk liberté euh, conditionnelle dañuy ñaan képp kuy taskatu xibaar képp kuy technicien képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci média yi nga jóg xam ne semaine bi ñu jëm dafa nar a tar et ci la ñuy xamee ba xam nag benn say lañu wala duñu benn say et dañ fas yéene à partir de lundi ñu génne benn édito commun comme niñ koy faral di defee saay suñu jubee combat bu am solo et édito commun boobu noonu dañ ko génne ci support yëpp buñ ko waree traduire en wolof dañ ko traduire en wolof buñ ko waree traduire def ko en français version francaise dañ ko def ba nga xam te ne rajo yi dañ ko mën a teg télé dañ ko mën a teg buñ ci jógee mercredi ba li nga xam te ne tam faral nañ ko di def aussi saay suñ nekkee ci xeex mooy conseil des médias dajale fii journalistes yëpp euh, ñu toog waxtaan ci métier bi waxtaan ci agression yi et surtout ŋàññi li nga xam te ne mi ngi fi am et bu continuer non seulement suñu démocratie dina naax saay mais aussi euh, Sénégal tolof tolof yi dina fi gën a bëri euh, fi ñuy tëjee semaine bi nag mooy journée sans presse le vendredi incha allah donc vendredi bii di ñëw la ñu xam ne taskatu xibaar yi dañuy bër teg euh, teg micro fay ordinateur yi fas yéene xamal sénégalais yi xamal képp ku nekk ci àdduna bi que Sénégal kat métier presse fi sooxe que Sénégal kat journalistes yi nekkatuñ ci jàmm parce que saa su ne ñu ngi xoqatal saa su nekk ñu ngi leen di tiital saa su nekk ñu ngi leen di emprisonné ak di leen di mënaase ak surtout parfois aussi di taal seeni kër ak seeni bien parce que dund nañ ko fi plusieurs fois. et bu ñu defee woon euh, marche bo euh, sit-in boobu ñu defoon ministère devant ministère de la communication loolu moo taxoon donc di fàttali que ne fii bu dee force de yi dañuy attaqué dañuy gazé dañuy dóor ba nit ñi di ci accidenté état bi daf ñuy xoj di tëj di sàkkal pexe journaliste opposition bi di xupp journaliste yi di agressé journaliste yi di ñu jeter à la vindicte populaire mu nekk loo xam ne nag mënatuñ ko nangu fa ñu tëjee mooy marché bu mag boobu dinañ ko waajal def li ci war yëpp en juillet incha allah bu ñu tabaskee ba pare nañ ko préparé quatorze régions yi nekk Sénégal yëpp journaliste dañ marche xamal que ne aussi it que mbir mi mu ngi bëgg a jéggi dayoo et du ñu toog di seetaan suñuy métier ñu ko traversé ak di teg lu nekk ñu nar ko nangu duñ ko duñ ko euh, duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba léegi nag pour ñu mën Euh, réussir plan d'action bi pour nit ñi gën a mën pour nit ñi më weg ñu il faut que ñu nekk benn say xàccandoo dóorandoo et bu ñu may ñi nga xam te ne dañuy socc seen gémmiñ socc seen i bëñ toog di xaar naa ah presse bi di jubawuñu ànd ñu nekk ñu benn bu ñu leen may lu ñu ree donc nañu fexe booy bu ñu joxee moo d'ordre bi entreprise de presse yëpp jeune reporter yi techniciens yi reporter photographe yi rajo communautaire yi ñëpp respecté ko doxale ka ba muy gouvernement bi di opposition bi ñëpp xam ne carrément kat bi tradition de lutte bi mu yàgg am mi ngi fi ba léegi et duñ nangu kenn di ñu jam naa ni jërëjëf